ñii ma nekkal ñëpp amul kenn ku ko soxla yii nga xam ne nag moo ko créé ci ay problème moo ko réglal boppam nit dangay am humilité léeg-léeg soo demee ba xam ni mbëkku nga nga ñëw ne gars yi mbëkku naa wàññiwul dara ci sa daraja waaye bëgg a ñëw di ndax nit ñi naan ay dialogue yooyu ay prérogative am la yoo xam ne constitution moo ko jox su doon dañ ne c'est consultatif rek mais dafa ne lu ngeen décider moom laay def kon ñooñu ñoo yor Sénégal léegi nee na change mbokki Sénégal salaamaaleykum seen soppe seen xarit Euh, seen doom seen frère seen sœur Ousmane Sonko may def vidéo bu gàtt bi rek pour euh, waxtaan ak yéen saafonteeg yéen euh, yee salaat sama nammeel ci yéen xam naa ni nu nu ko raw ngeen ñu nammee fas yéene ci lu gàtt rek am lu ñu ubbi ci ay tomb ci waxtaan ak yéen waaye di ko doore ci félicité encore une fois suñu gaynde yi suñu équipe nationale football bi ci bégal gi ñu bégalaat démb gannaaw bi ñu ko defee ñaari weer ci gannaaw ci Coupe d'Afrique bi mooy qualification bi nga xam ne mooy ñetteel ci lu mel euh, ñu war a dem fi àdduna yëpp di daje wala li ci gën a fës ci wàllu football loolu ndam gu rëy la ci Sénégal gàcce ngàllaama di félicité joueurs yëpp di leen encourager waaye di leen wax ni Sénégal kontaan nañu ci yéen. di féliciter it staff bi ñi leen encadré waaye di tiire benn jàngat bu am solo mooy ñun sénégalais bis bu ñu booloo nekk benn rek soo xoolee équipe bi moo munoo ci xam kuy Casamance wala kuy waa Jurbel wala kuy waa maatam wala kuy waa Ndar wala kuy waa Saalum di entraîneur bi ba ci footballeur bi gën a jeex loolu mooy Sénégal loolu lañ ñu bëgg a xañ nag ci at yi yëpp waaye su te dara waralu ko lu dul politik waaye bu Sénégal yëpp daje amul waaso amul fii dëkk ñu bokk jëmukaay am gëm-gëm amul lu ñu të kon loolu jàngat la gu rëy waaye di félicité it supporters yi supporters yi kontaan nañ ci seen taxawaay mbir mi noonu la fi ngeen ko jàpp foofu la ndax ful la fayda ak jom mooy jox nit li mu war a am te wane ngeen ko dem ba mat sëkk yénn ak l'homme di match mbokk yi gannaaw loolu euh, dëkk bi yëngatuwaat na en ñaar ñetti fan yi weesu yëngatu ci wàllu wax ak ci wàllu communication te li ko andi mooy li ñu rëccal mu law ci dëkk bi yëpp ak bitim réew ni ñoo ngi waaj a teg loxo ci Ousmane Sonko bi coow amee ba léegi gis nañ seen taxawaay gis nañ seen dogu yéen waa askan wi rawatina ne yow ndaw mi gis nañ ngeen fe feddaliwaat seen yéene ci ñun ndax bëri na ñoo xam ne jàppoon nañ ni li ngeen wane woon ci jamono mois de mars te ñuy ñaan yàlla bu mu fi mës a amati. loolu ne nekkatu fi ba ñu yaakaar ni war mën nañu delluwaat ci lañu nekkoon ci ay tappale waaye li ngeen jot a fësal wane na ni tey la ngir mi gën a foor ba leen di gërëm di leen sant di wax ni nag kóolute goog ngeen am ci ñun du jëmm Ousmane Sonko ndax amul solo ndax gënuma fi kenn judd ëpp ma fi kenn alal wax dëgg yàlla foo natt rek nit laa dong ni yéen gënuma fi kenn waxuma nag ni nit ñoo ma gënit waaye du jëmm Ousmane Sonko juróom benni at juróom-ñaari at yi nga xam ne taxaw nañ ko ci ci ci ci ci géewu politique bi lañ leen andil ci wax ak ci jëf ci gis-gis ak ci yéene lañ leen andil ci yéene gi ñu am xeex ba nooteel gi nga xam ne ñu ngi koy dund ay siècle ba tey ji jóge fi ba alal réew ñi ñuy ràndal jóge fi ba dërëmu réew mi dellu si ci askan wi ba suufas réew mi nga xam ne ñu ngi koy jaay loolu dakk ba ressources naturelles yi nga xam ne ñu ngi koy séddoo di ko pàccoo te Sénégal amu ci dara dàkk yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu andi te woon leen ci dogo gu mat sëkk loolu moo tax ngeen ñi xeex waaye du jëmm Ousmane Sonko loolu nag niñ ko andee démb ak barki démb te lañ ci gën a am dogu ñu leen di gërëm ci confiance boobu di leen feddiliwaat ni confiance boobu bu soobee yàlla fii leeg bakkan yàlla ñu koy bàyyil du ngeen toog ba ne am nañ ci déception waaye mu am lu ama am solo mooy lu indiwaat coow li mooy nee nañu Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko moom ci boppam def na émission ne leen si ñëw am na nag lenn ci senegal yi essayé lenn ay nit yu essayé nërmal xelu senegal yi naan leen dafa respecté wul institution yi moo tax mu bañ a signé ma fàttali ni gis nga institution du ab nit boo mën a téye du ab garab goo mën a laal du ab bâtiment boo mën a teg sa loxo institution benn entité bu abstraite la benn mbir la benn jëmm la joo xam ne jëmmoowul ci lu ñu mën a laal waaye la koy jëmmal ñaar la muy yu am solo bu ca njëkk mooy chart yi nga xam ne. moom la réew mi tëral ne institution bi ci charte yi la war a doxee ñaareel bi ko jëmmal mooy nit ñi nga xam ne teg nañ leen fa ne leen yéen a war a doxal institution bi waaye dañ koy teg ci kaw charte yi nga xam ne ay loi ak ay règlement yu ñu wote ba teg ko bu ñu demee nag ba nit ña war a jëmmal élection euh, institution yooyu ñoom ñooy njëkk a joggati institution yooyu dafay laaj ku ko mën ku ko mën wala ku ko sañ nga taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen li ngeen di def tegut yoon looloo andi situation bi ngeen gis ndax ñaata yoon la institution bi jalgati samay àq ak samay yelleef ma fàtte leen si lu gàtt débat bi sax bëgguma ñu teg ko ci ka ci waxu institution parce que man gëm naa ni li ëpp ci magistrat yi ñu jub lañu ñu dëggu lañ ñu bëgg a def seen liggéey lañu gëm naa ni foo dem di nga fa fekk lu baax di nga fa fekk lu yées di nga fa fekk lu tane kon buñ ko tuddee institution judiciaire dama ne magistrat yi nga xam ne seen loxo jot naa dugg ci dossier bi mu dooree ba léegi nañ ko doxalee teguwul ci yoon ma fàttali leen ni bañ may njëkk a convoqué fekk man may député am immunité parlementaire dama leen di fàttali rek parce que sénégalais léeg dañuy gaaw a fàtte te ñoom dañoo yor seen communication boo xam ne dañuy essayer nërmal xelu nit ñi ma fàttali bi ñu may njëkk a convoqué maa ngi yor immunité parlementaire mooy bañ ma falee député ba pare askan wi moo ne député jox nañ ko kiiraay goo xam ne balaa nga koy convoqué il faut mu jaar fii ak fii ak fii procureur jalgati yooyu yëpp ne waa section de recherche convoqué leen Ousmane sonk bu bañee ñëw dem leen jëli loolu benn ci jalgati samay àq la ma leen ne du ma ñëw fi rek fi ngeen war a jaar yéen yëpp yéen a teew le 8 janvier le huit février ba ñuy yónni seeni alkaati ñu ñëw sama kër ba xeex bu métti am fa ñaareel bi ñu ne dañuy yëkkati sama malaanu kiiraay waaye jaaral nañ ko ci anam goo xam ne kenn mësul gis ci lu toll ci ñetti wala ñeenti fan ñu ne def nañu procédure bi yëpp assemblée nationale bi ko levé assemblée nationale bi yëkkati sama malaanu kiiraay composition bi dafa irrégulier ndax benn waa opposition toogu fa waaye comme ñoom gisuñu woon lu dul luy tëj Ousmane Sonko nañuy def ba jàpp Ousmane Sonko tëj ko ñu jalgati règle yépp ci njiitalu Moustapha Niasse ñu ne teggi nañ sama mbalaanu kiiraay loolu di ñaar ci jalgati buñ ko jalgati gannaaw ba bañ ma convoqué ma jóg di dem tribunal ñu ne ma ñoom ñoo may tànnal fan laay jaar par force citoyen bu jog yow kay soo convoqué nit toogal rek xaar ko nee nga ko 9h su ñëwul 9h nga ne ñëwul waaye dinaa la convoqué waaye fii ngay jaare par force may leen duma jaare foofu ndax lañ fa tegoon ci ay piège ñëpp xam nañ ko ne leen fu ma neex lay jaare ñu jaay ma doole jàpp ma keroog gis ngeen li xew rond point Jet d'eau jàpp ma téye ma juróom benn fan ci loo xam ne jaay doole la tegul ci yoon bu dut woon yéen waa askan wi bu dut woon yéen waa askan wi justice boobu moo doon doon braawu pouvoir bi braw nguur gi mooy doon loxo nguur gi pour ñu sàkkal ma pexe tëj ma ci ay caaxaan yoo xam ne tegul ci yoon muy beneen boo xam ne am na fi noonu lañ ma jàppe di ma yee ay quatre heures du matin forcé ma dugal ma seeni oto yóbbu ma tribunal andiwaat ma yeewaat ma quatre heures matin ci loo xam amu ci benn boo xam ne respecté na procédure loolu yëpp ñu dund ko fi balaa loolu am yéen ñëpp gis ngeen sama kër moom defe naa moom ak Ukraine ñoo yemoon ñu jël ay chars de combat lu ne dem bloqué sama yoonu kër yëpp samay doom di dund fitna boobu samay waa kër di dund fitna boobu ci loo xam ne ñoom ñoo ko imposé Sénégal yëpp teg ci bët àdduna yëpp teg ci bët ba ñu demee ba forcé ma ne léegi da ngay ñëw ñu déglu la juge ba ne day def mandat de dépôt mandat de dépôt boobu ne day def euh, contrôle judiciaire ci loo xam ne amul dara lu ko justifié man deew ma fenn man dama am yéene nekk président deux mille vingt quatre dew ma fenn ci àdduna amul ku ma mën a génn ci réew mi tey su ñu yëkkati woon sama contrôle judiciaire taxul ma tukki ndax sama sécurité man nekkul ci tukki tey ji sama sécurité biir Sénégal la ne kon amul woon dara lu justifié ñu def seen mesure boobu ñu ne leen naam dinañ ko nangu ñu ne ma dossier bi waroo cee wax waroo cee yëy yàbbi waroo génn réew mi waroo waroo man leen d'accord